ma de termine yéene kaay ne ne manifestation ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane day waaw ginnaaw Ndakaaru Njaajal Joob ak Ziguinchor Casamance waaw jàppal ne démb nag bi ñoo na daa tàng lool jër ñaari doomu aadama kon am nañ ci ay gaañu gaañu dee waaw am ci ay yoo xam ne kon dañ leen a taal bu dugg station Total ba day ñu daal di koy attaqué am na ci ay ndaw yoo xam ne kon dañoo taxaw tey tëkk-tëkkal ci mbedd mi lée ne duñu bàyyi mu seet benn yoon yéene kaa ne élément la préfecture ba la dem taxaw toogaanu ne seen yi nga xam ne ko nañ leen a jàpp day danañ leen fa jëlee les écoles yéen a kaa ne ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ci Ndakaaru Njaay Jël Joob a kaa leen a jàpp ci Ndakaaru Njaay Jël day waa Pastef waaw nee nañ ñi leen di dóor di leen mitital di leen torturer te loolee du yoon dañ leen a war a bàyyi ñu ñibbi laa la wax 24 heures yéen a kaa ne fukki day ca bi ñoo na am na démb élèves ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca commune ba day ñoo dakal na ci mooy Émile Badiane bi lée armée ba ca boppam kon nañ leen a mujj woo ngir ñoo kon jubbante tund wa enquête yéene kaa ne ñooñu ak Ousmane Sonko day démb ca ñoo na waaw lépp la ñu caxa-caxatee laa la wax ñëw le témoin yéene kaa ne ginnaaw coo ki di xeex yi nga xam ne ñoo fi amoon ñooñu ak Ousmane Sonko yi def ko dal la gis dee waaye est nag mbir mi kon du yënguwaat looloo jar a laaj Cheikh Agibou day ci 24 heures waaw nee sama réew mi lée bakkan na man damaa man waa affaire laa de ne damaa rus waaye Abdoulaye bu defoon lii Macky Sall mi dana demee neneen exclusive yéene kaa ne pourtant nee nañu Macky Sall day yëfu ñàkk fayda yi lée laale wu yoonam nekku ci laa la wax 24 heures ne ko may ma ma yeegali may ma ma yeegali gis nga ñaar fukki fan ci weeru juin 2011 juróom-ñetti fan ci weeru février 2021 waaw Ousmane Sonko mi lée est-ce que nekkul ne ci ay tànku ne ci naka Ousmane ko parce que gañeegul ca la ne maa ngi woo militant républicain ak sénégalais yi nga xam ni ëllëgu réew soxal na leen ak banqaas su réew mi lée ñu ñoo fekk si ñu ci mbedd mi ngir dakal bàyyi wàcc jox doom ci xeex a nguur gi day ci mbedd mi rek lay amee Macky Sall ko waxoon tous les militants républicains et les sénégalais soucieux de l'avenir de notre pays et de nos institutions de venir nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal yéen kaa gi ne loolee itam moo feeñaat juróom-ñetti fan weeru février 2021 ak Ousmane Sonko bi ne mi ne l'heure est au combat Macky Sall na ko nekk le rapport de force heure xeex jot na Macky Sall xamul yee defante la xam dem leen ngeen laaji Khalifa Sall wala ngeen Karim Wade mi ne Macky Sall ay mbirum droit ak yooyee nga ñam nekku ca fit nagalee ci la ñuy tudd xam nañu ko bi yoon nag ça va passer ou ça va casser dañoo nekkatul na ci jamono yi kaas ne ci salon yi di waxu Ousmane ñàpp la benn ñaar ña waxuma la sax dëx yi ndax du dégg waaye bët ya muudu na tànkee baaxul dërmine yéene kaa ne njiital Pastef day diggante liberté prison la ne mar di tali moo taxit opposition ba day ña nga ca ginnaaw Ousmane Sonko ay da mbooj seeti woon na koon Thierno Bocoum Khalifa Babacar Sall ak Barthélémy Dias critique yéene kaa ne boole ca Aminata Lô Dieng Moustapha Guirassy a waaw yéene kaa ne Ousmane Sonko day séeraas lañ ko jëmee dañ koy rey de abattoir le quotidien yéen a kaa de xoolal procureur Serigne Bassirou Gueye bind na lettre attakat wa nekk ca huitième cabinet baax allahu akbar waaye moom Ousmane Sonko day gendarme yi nekk Colobane googe duñ ko mujj déglu laaste assemblée nationale kay daal nañu machine ba les écoles yéen a kaa ne moo dafa la aka gaaw ndax ni ki démb suba day le maître Malick Sall ministre de la justice waaw daal di di Moustapha Niass commission des lois ba day danañu daje ajuma wala altine ji ñëw yéene kaa ne laal li malaanu kaaraange Ousmane Sonko ba day njeextalug semaine ba la ñu koy def exclusive yéene kaa ne coowal Ousmane Sonko bi ne day daf ci am yenn ci ay journalistes yoo xam ne mais ñoo gën a yàkkamti procureur parce que yow gis ñenn ñoo xam ne li ñuy bind la muy saf du lu dul ñii dañ leen a ay article commandité ardital yéene ne te xoolal bagage yaa ngi nii tege lii a a tribune xale bi nee na Ousmane Sonko da koo siif dem ñëwaat siif ko dem ñëwaat siif ko dem mu ne loolu yomb na de tamit ñaari pistolet tiimale ko ne tamit da koy rey message yam ko doon de ko kenn gisatu ko xale bi ci boppam xel daa ca moom ñu ne ñeent fukki million tamit jox nañ ko borom salon ba ngir mu dugal Ousmane Sonko waaye daa bañ na lu ca ruuse parce que jëkkëru ne moom moom salon ba day xamal na enquêteurs yi ne leen man day dégguma woon prix wi du coow du wooteeg ndimbal exclusive yéene kaay ne réew mi tamit est moo gën a yomb fop dama la indi ay di firnde Thierno Bocoum day nee na gis nga procureur bi laa la wax daaw da min ne droit rek droit rek libération yi ne gis nga Mohamed Ndoye mi nga xam ne moo daal oto ba jaxajaxatee kon Prodac waaw nee na li ma def réccuwuma ci dara ba dara booloo laa la wax source ané waaye Ousmane Sonko moom xanaa assemblée nationale député bu feebar kër ga du la faj xëj na Ousmane Sonko da leen a ndox ma nga xam ne dañ koy a léegi yegg nañ ci juróom-ñaari téeméer ci ay bakkan yu rot a akbar Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures ne corona bi kan moo ci profité Macky Sall daal li tax mu teg nit ñi la adi bañ ay ndaje ay manifestation Macky yaakaar na mën naa xoj nit ba kenn du ñax direct news ne Cheikh Anta Diop faatu na waaye rayaat nañ ko fii ci Sénégal de la mu doon jàngale furaas daal di xireen ci école Sénégal yi village am baa nga nele saytu daanaka ñu bëri cent deux mille quatre-vingt-treize si ñoo xam ne dañoo am baccalauréat orienté nañ leen uh-huh. directeur u enseignement supérieur am solo yoo xam ne kon def nañ ko ca université libération yi nekkaay ne ñaari atu yàlla ginnaaw ba mu réeree ca Touba xay rekale bébé Muxtada waaw ñetti at ba furaas am na juróomi gisaanekat yoo xam ne day enquêteurs yi déglu nañ leen dem nañ dem ci benn këru responsable APR ñoom takk der kay dem nañ ba ca bant filaawo nekk ca Malika la ilaha illallah le soleil yéene kaane ginnaaw fukki yoo xam ne bombardement ci bët Saloum ak Ziguinchor waaw armée ba day daaji nañ ñeenti bërëb yoo xam ne rebelle yee ko moomoon laa la wax baasu bajong bu solum bu maan ak sikun ca yàlla <laughs> waaye nag gis nga armée bi lee ak lum bombardé bombardé bombardé bombardé bombardé bombardé ñoom soldats yi nañ xam ne tamit ci pétrole bi lañ bokk waaw waaw parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën na la alaaji tëjal www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.